bu defee incha allah ci bu sëriñ mu ànd ko ak sëriñ Abdou imaam yara kàddu gi waa ànd ko ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ci njiitul sëriñ Afiya Bousso te ñi ngi waat fii ci ñaar fukki fan yi ak juróom-ñeent ci weer wi waaye ñu ànd ak sëriñ Bassirou Mbacke mu sëriñ Abdoul Khoudous mu nekk ca Daarul Moxti dox suñu diggante ak waa Tiwaawan waaye ñoo ànd ko ak sëriñ Modou Mbacke si mi nga xam ne moo jiite mbooleem représentant xalifa général des mourides yi ne ci euh, Sénégal ànd ko ay tam commission bi nekk Dakar ci njiitul imam jeen ak imam Ndiaye euh, tey jii nag la ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ginnaaw bu ñu sëlmalee timis Eh, yéene nañ ci ne nañu séntu weer wi bi ñu noppee ñëwaat nañ ci buntu sow bi jàkkaarloog tali El Hadj Babacar Kébé Ndiouga yàlla na sunu borom doole ay leeram eh, kaddu yi nga xam ne nag mooy doon kaddu yu ndigal yi bàyyi ko ci Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha waxtu wu ne mi ngi jóge ci Serigne bi ñëw directement ci sëñ Moudou Mamoun Boussa wàcc ci sëñ Abdou Diop imam mu war koo jottali bokki jullit ak bokki taalibe yi ñuy séntu nag weeru safar. li nga xam ne moom la sëñ Tuubaa wax ne na ko jullit yëpp maa sant la boromam kon sëñ Abdou ñu bàyyi ko ak kàddu gi mu jottali ndigalul sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ni ko sëñ Fallou Gallas si la waxee rek noonu la demee maanaam weer wu ne sëñ bi dana yebal ci jumaa ji ngir nu yéene fi wax ne nu séentu weer wi ci ndee ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yu ne waaw bu te ko ci xam lu weer nga ñëw yégle ko bu ko defee euh, buñ ko si buñ ko buñ ko yéenee bu noppee danañ toog ci sow di ñun ñëpp di séentu ak di jokkoo gox yi ngir dajale xibaar yi bin jokkoo nag ba waxtu nag mel na ne mel mel mel eh, eh, daje nañu xibaar yu yu bari yu wane ne gis nañ ko ci biir yu baree baree bari bi ñu defee nag lañ jokkoo kër sëñ ba yëgal ko ko ba sëñ bi kon joxe na ndigal ne kon ci noonu ngeen ko gisee rek kooku moom it joxe na ndigal ci ñu war ne suba kon mooy benn fanu safar waaw ñëpp xam ne kon suba ci altine ji mooy benn fanu safar kon nag ñëpp ni ko xam kon eh, màggal gi alxemes lay doon kon waaw ñu ko ñëpp xam moom waaw màggal gi ñu xam ne alxemes lay doon kon daal ñaan waaw nuy ñaan bu fukki fan waaw ak fukki fan ak juróom-ñett fukki fan ak juróom-ñett ci ci ci weeru sabar waaw dëppeeg bër bë kub alxemes altine talaata alarba bu alxemes ci lay jegewaat bu ci jógee bu juróom-ñetteeli fan ba alxames lay doon. waaw mooy loolu kon bis bu alxames lay doon. kon na ko ñëpp xam noo ngi ñaan nag suñ bi yàgg fi lool te wér te li ñuy wut ci màggal gi lépp yàlla may na ko ci xeet xeeti xéewal yi ni war a doxale yëpp nu am ko te am day jafe ngërëmal sëñ Tuuba salaamaaleykum wa rahmatulahi taala waaleykum salaam wa rahmatulahi wa barakaatu kon xam naa bokk yi rek ñuy bàyyiloo xel ñi nga xam ne ñoo yor réseaux sociaux yi di bàyyiloo xel ñi nga xam ne dañoo tënk ci biir yoonu murit xam ne déclaration weer wi waruñu ko yëkkati lu dul na ndigalul sëriñ bi moo jib ginnaaw sëriñ bi dafa tànn ab commission boo xamante ne bii ci jamonoy sëriñ Saliou la ko tànnoon fab ay ñu ko doy jiital leen ci muy sëriñ Modou Mamoun Bousso imam ànd ko ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ak kilifa yi ñu ko seqal kon ñi ngi sàkku képp koo xamante ne bii organe bi nga yor ci yoonu murit lay tënku bala ngaa waxati ne weeri feeñ na wala feeñut nañ nekk ba jot ndigalul Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha ndax ñi koy séentu mbooleem régions yi ñu ko fiy séentul buñ ñu waxee ne gis nañ ko it ñun amuñu droit wax ne gis nañ weer wi dañuy delloowaat kàddu gi Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha na ko dëkk sangam dëkk sangam gis nañ ko bu nu sëñ bi nee nañ wax na feeñ na ñu wax na feeñ na bu nu sëñ bi nee bu leen ne feeñ na dañ naan bu feeñut kon ñun amuñu droit joxe ndigalul weer wi feeñ ne ci Sëriñ Tuubaa waxuñu ko kon nag ñi ngi sàkku ñëpp ñoo xamante ne bii ñi ngi ñuy bàyyi xel bala ñoo joxeeti ndigal nañ nekk ba Sëriñ Tuubaa joxe ndigal ba noppi ñu joxe ndigal loolu ndax ndigal benn yoon nañ koy jëfandikoo te sëriñ bee ñuy jox ndigal laa tafxalu shay'an bi xayri ismi fal isnu sartun fii xabuli sani nuru na jekk nañ mu wóor la na jekk na da koo gën a wóor ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu Eh, waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.